jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy topp ci Leewtoo TV suñu mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu amati mbégte ak contentement ci jàkkaarloo bi ñuy jàkkaarloo ak yéen tey nag fi ñu nekk kenn du leen ko présenté ñu ngi fii ci parc Lambaye di bërëb ba nga xamante ne bii ay amateur lamb rek lañ ciy fekk fas yéene waxtaan ak mbokk yi ci lépp la nga xamante ne bii lamb dong lay doon. dinañ waxtaan ak amateurs yi ci li nga xamante ne bii moom mooy huis clos bi nga xamante ne bii promoteurs yi ñu ngi koy lam-laamee dinañ waxtaan ak amateur yi tamit ci li nga xamante ne bii mooy perpétuité bi nga xamante ne bii euh, promoteurs yi bëgg nañ koo bëgg nañ koo proposer ñi nga xamante ne bii moom mooy amateur yi wante tamit ku nekk xam na ne ba làmb taxawee ba léegi war naa toll ci fukki weer amateurs yi danañu wax ban jàngat lañ ci am loolu ci kanam tuuti lay doon dañuy ànd ak yéen dugg ci biir parc bi waxtaan ak mbokk amateurs yi mu ànd ak sama caméraman ay ci ñu dem. waaw salaamaaleykum waa Leewtoo maa ngi di ziar bu baax man la Basir Diouf amateur làmb waaw di supporteru Ama Baldé di leen bu baax di leen bëggee di jox seen wàccuwaay di leen ñaan jàmm di ziar waa Leewtoo gépp waaw lu doon seen tànk tey. jërëjëf Basirou lin la lin lay laaj mooy ku nekk xam na ne làmb ba mu taxawee ak léegi war na toll ci fukki weer lan ban jàngat nga ci am. waaw làmb moom wax dëgg yàlla comme ni ko waxee rek ba mu taxawee léegi mat na fukki weer. waaw ñun jàngat bi ñu ci mooy ñun wax dëgg yàlla làmb moom ñun dañoo toog ci grand place di waxtaan koy naa sama mbër nii koy naa sama mbër nii mais depuis boo koy wir commencé waaw mais comme huit kilos bi noonu maanaam li naaw comme la fa sës comme la fa gën am la fa sës waaw huit moom wax dëgg yàlla moom am na mbër yoo xam ne bu dem ci làmb dañuy ànd ak doole quoi people say supporters ñëpp topp la mais comme dañ ko moom wax dëgg yàlla moom comme la fa la fa gën am la fa sës waaw bii kuréel bi ànd naa ci demoon ànd naa ci mais ci ko ànd moom nañ jàppale promoteur bi ko dëgg wala état jàpp ci wala sponsor yi ñëw fekk si leen xam nga non làmb en tant que mooy li wax rek mais ku amul la fa gën am la fa sës nam làmb nam boo xamante ni maanaam bu ci état yi mën a jàpp ak sponsor yi ñu def ko huis clos xam nga ci ci biir huis clos bi noonu même bu dee 500 personnes sax ñu ñu ñu ñu solante ku ne takk masque bu ko defee ñun ñi nga ñi nga xam ne ñoo nekk suñu kër ñu ñu filmé ko wan ñu ko man Pam Ndiaye lañ may wax ne Pàkku Lambaay amateur la mais làmb bu ci supporteur génnee amateur génn ci lamb amatu man làmb supporteur laa ci xam ak amateur ñoo yor lamb bu ci génnee rek lamb amatu. kon ci yow ma ci neexalu lamb kilo kilos neexalu lamb lamb amateur la ak supporteur samay wax nag du ci bari. waaw waaw lamb dafa am sarme waaw. dafa am li lamb mooy supporter ak amateur mooy li ma la wax rek waaw lamb amateur day toog ci kaw turbine mbër dugg si dégg nga dongal yi amateur yuuxu supporter yuuxu loolu moo tax ñu naan lamb waaw mbër xabtalu ñu xëpp ko soow mi daanu ko tuusal mu mu mu mu mu sinoor yi mu mu mu joo ko xibla yëpp ñu dugal ko mu gës mu ñu ko soow mi loolooy lamb mais bu ci amateur bu ci amateur génnee lamb amatut bu ci supporter génnee lamb amatut ban jàngat nga def ba làmb ci taxawee ak léegi ah am ci lu ma metti ndax man dama bëgg làmb te làmb dafay nekk suñ sport national làmb dafa nekk loo suñ culture la ñoo ko moom kon bu ci lii amee du ñu am lu ñu neex noonu rek làmb moo ñuy dundal waaw dimanche jot nga dagg billet dem làmb toog waaw ah seetaan lamb ji mu tas nga ñibbi sa kër loolooy lamb. tey boo amoon message booy laaj sa état bi lan lay doon. ah état bi nag wax dëgg yàlla du ma ci sori. foofu moom du ma fi sori. pour ñu jàppale promoteurs yi pour ñu mën a tëgg lamb waaw boo déggee ma ne la du ma fi sori. dañoo ne ci crise non boo déggee ma ne du ma ci sori dañoo ne ci crise te crise bi ñu ne dafa nekk loo xaay ne ni dañuy ñaan suñ borom gaaw ko fee jëlee. ndax buñ ne ah feebar am na ci réew mi te wax dëgg yàlla mu nekk loo xaay ne nii dafa sonal doomu aadama yëpp ñu ngi kenn talatu dara yal na ko fi saa boroom gaaw jële ko fi ñu delluwaat ci activité yëpp loolu rek laay ñaan waaw. xanaa da nga am rendez-vous. ayol ziar bu wér. naka bagaal sant Serigne Baaw. waaw gis nga mooy loolu noonu. jabu murit la ko waa. jabu Baay mhm, ji. ba mu taxawee ak léegi ci am ba mu taxawee yi ah, taxaw na mais pour le moment nii daal dañ ko war a dijji jaamu yàlla yu bëri ji. Macky Sall dafa war a war a geesu làmb parce que Sénégal tey fi mu toll mun naa ne làmb moo ko fa yóbbu nan waxante dëgg. te bàyyi raayante bi Macky Sall day day day mbuboo laamu ñu mais gëmu ko sa yaa ngi dégg ñu nag ay jeunes gëmul laamu parce que xamul tax su gëmul laamu ji tijji na football bi tijji na handball bi basket yi ñu ngi basket mais pourquoi pas mbëri duñ bëri te dëkk fii Sénégal te làmb di suñu cosaan. la wax ban huis clos huis clos bi ko waxee est mun na mun na chaque journée mu jënd 2000 places su ko defee promoteur na nangu huis clos mais huis clos boo xaaj di dugal xaalisam. parce que loolu xel nangu na ko noonu waxante dëgg làmb dafa am lu mu laaj dafa laaj ay safal mbër mi dugg xam geesu gis public mooy loolu noonu sponsor yi tamit xam nga même duñ jël lépp te ko magi saa ñoom dana war ñëw dugg jàpp si làmb yi ñuy nekk fii di leen di leen di di di leen sponsoriser ñuy jël seen marchandise yooyu di di ko ko yóbbu seen réew mi sponsoriser doomu réew mi li ñuy bi moo gën quoi waaw. ñu ngi wax li nga xamante ne moom mooy perpé perpé Euh, est-ce que pare ngeen yéen pour jënd ko. non bu ko laajee rek parce que fi jamono tool tamit faaw ñu dawal compréhension xam ne li mënoon a am bu njëkk rek mënul nekk parce que dafa nekk ci yaa ngi dégg maanaam PPV bi mun na nekk mais ci kaw ay condition condition yi muy nekk mooy maanaam ñu teg ko si logique ñu ci war a jàpp jàpp ci ñu ko war a nga xaay nañ ko jaay jaay boo xam ne fu ma waay mën a toog war ko mën a jënd gis sa bopp daal waaw. looy wax looy wax ñu muñ rek nga xam ne ñoom ñoo perte quoi. parce que amateur mooy dundal mooy dundal làmb moom làmb day dundee làmb day dundal làmb mais làmb dundewul làmb quoi waaw kon ñoom mënuñ ñoo perdre seen plaisir ak mbër yi nga xaay ñoom ñu entraîné di jaay seen doole war a mën a fayeeku fayeekuñu ñu ngi dugg ci gaal yi boo dee mbuur dégg naa écrit yu bëri tas ndax ndax làmb ji ndax làmb ji tax nii quoi ñu dee na ñuy jàll nan mooy loolu waaw Leewtoo di leen ñaana rek parce que li ngeen def nii tamit naay na quoi bu leen nee ngeen di këcc seen wejet jàpp seen bopp mais defu ko yéen a ngi wàcc si le terrain li di jëndi gars yi li jëndi amateur laamu yi li di jëndi mbër yi yàlla na suñu borom fay teg leen loxo barke Serigne Saliou. am leen ceeb bi saf na ma. waaw mais gis nga ceebu ceebu murit la. sayan jërë ngeen jëf mbokk yi ba léegi ñu ngi fii ci biir parc Lambaye jàkkaarloog benn Baye Fall mais sa waay na mi ni nga ko tegee neex na ma trop. non mbax na mi mooy loolu quoi ah, affaire Baye Fall la rek. Hmm. yaa xam tur bi nan la Amady Ndiaye Euh, lan mooy sa gis-gis ci làmb ji nga xamante ne bii boobu ba léegi dafa taxaw. Ah, làmb ji ah sama caméraman comme ni ko ñëpp gisee rek làmb ji moom dafa war a tijjiwaat ndax bokk na ci li nga xam ne day dundal kii bi quoi askan bi quoi mm-hmm. ah, mbëri instant bii nii mooy loolu xaw nañoo sonn mm-hmm. war nañoo liggéey quoi. ñëpp ngi liggéey ba mu des mbëri. waaw mbëri dañoo bokk ci askan wi dañoo war a liggéey quoi. Mm-hmm. huis bi ñuy wax est-ce que yéen amateurs yi ànd ngeen ci. non huis clos non ñun ànd ñu si de. loolu neexut quoi. daam balaa neex dëgg moom gars yi nekk si as kaw kaw. gars yi yëngal si kaw mbëri yëngal ci suuf waaw. mooy loolu quoi comme champion yi nekk si paak bi ñoom it war a yëngal quoi bu ko ñoom ñuy yëngal si kaw ay ñoom Ndiaye Lambaye. ay Mandiaye Jinax gaa yooy quoi. am na mbër mu tudd Mandiaye Jinax. <laughs> Mandiaye Jinax waaw waaw. <laughs> la moom mooy lool ñee yëngal si kaw. defee boo defee mafia bi yëngal ci suuf quoi. mooy loolu làmb wii ku la àndoo ci. non non non man ànduma si de. Hmm, dafa am dafa war a am ambiance quoi. mooy waaw. waaw. waaw. <laughs> soo liggéey waa kay ayca mi ngi noonu. ah sama gars yi tey moom ab mene bar la maa ngi ci biir maçon yi oh Baye Fall bi jaar naa la de mbaam nga jàmm bu bëree bëri tur bi la Moustapha Moustapha waaw Moustapha tey ñu fekk leen fi ngeen di liggéeyee ñu mm. bëgg na waxtaan ci li nga xamante ne bii mooy lamb mm-hmm. xam na ne depuis dix mois ngi nii làmb amul yéen amateurs yi nu ngeen ko dundee métti lool ci ñun mm-hmm. parce que ki daan am di lay bégal wala lay toog di la xaarloo ci tele bi ngay toog di di xool lu bari man ma ko dalay lay métti lool. Mhm. waaw comme suñu bëgg-bëgg la nag euh, ñu ko ŋànk bu ñu mënee dimbale ñu xool ni ñu ko mën a oyofalee ba ñuy bëre waaw bañ koy mën a seetaan ñun amateurs yi tamit dañu gën a neex waaw loolu moom macha allah bu ñu ko amee mais ñi ngi naan dañoo bëgg def li xamante ne bii mooy làmb huis clos est-ce que yéen ànd ngeen bu baax sax mm. ah comme ku xamul feebar bi commencé na te kañ lay jeex mm-hmm. waaw bu ñu ko amee mu gënal ñu mm-hmm. ci gàttal mm-hmm. waaw bu ñu ko amee daal ñoo doon lu gën si ñun ñun seetaankatu waaw comme mën nañoo dem ñu toog ñu ko seetaan seetaan waaw mais xam na ne làmb dafa ànd ak ambiance te huis clos ku ko wax xam ne ambiance du fa am waaw mais nag lu yàlla wàccee wala lu yàlla nam li fi ne rek ngay def mhm. li fi ne doo ngay def comme nag euh, li dafa yàlla wàccee mënuñu koo tegg mhm. te mi ngi dox ak ñun mhm. am na lu mbake wax nañ jéem a dund ak corona kese man loolu laa ci xam li mu laaj dag ñu def ak moom ñu dund moom ci loolu kese pare ngeen pour jënd perpay vie bi ah pourquoi pas du moo ne. am déet du loolu la ñu wax. pare nañ pour def ko mhm. waaw. mais est-ce que xam nga ne da ngaa nuroo ak tafaatin wax waxuñu la ko. saa yi nag sama ñaawee nag mënu maa niroog tafaatin nag wax dëgg yàlla. ah kon da ngaa waa a waa Réfane yow waa fan nga. man laa. waala waala mais am nga trace ak. lat lat de guerre boo nee ma man niroo naa lat de guerre man la waaw. mais am nga trace ak tafa gars yi waxuñu la ko. mën naa ne. Hmm. mën naa ne man gisuma ah, ko. xëy na soxna yi gis ko <laughs> jaajëf Baye Fall <laughs> ziar waa Leewtoo waaw Pape Sow lañ koy wax dëkk nekk Paku Lambaay dëkk yëmbal route de Boune Aviateur euh, père ñu seet si leen tey di waxtaan ak yéen ci ci wàllu làmb xam na ne làmb ji ba mu ba mu taxawee ak léegi yàgg na euh, euh, ban jàngat ngeen ci def yéen amateurs yi ak nu ngeen ko dundee waaw jàngat bi ci def de mooy dëgg ñu ko bari dañ ko dul ñeme mais làmb moom tànk ginnaaw dëgg làmb amul tànk kanam parce li ko defit mbër yi yóbbu nañ xaalis bi foo xam ne si promoteurs yi mënatuñ fa àgg. yéegal ci gis mbër muy laaj 10 millions mbër mi leer naa ne ku ko jëloon 10 millions di ko jox ay ticket du ko nangu ndax wóor ko ni moom mënut a indi ci bi lu tolloog méngoog liñ koy fay ba pare ñu bëgg yóbbu seen bopp foo xam si àgguñu fa bu bëggee làmb ji neex mbër yi force ñuy wàññi kase bi promoteur yi di ci gis seen bopp amateur di ci gis seen bopp mais boo gisee kon xamay lom bokku loo xam si day jëmale làmb kanam et yi nga xam si ñoom daan ñëw di indi xaalis ci làmb ji ñoom it reculé nañ parce que li ko def mooy peut man ñii nee violence bi la ñii nee nañ làmb yi léegi dafa yomb parce que da gis làmb joo xam ne si même pas matul dara ñu koy def ay en direct ca yooyu yu bari day sooxee làmb ji loolu yëpp ñu ngi koy gis ci làmb ji ñun nag ay amateur làmb lañ daan dem làmb mais wàññi nañ ko lu bari parce que lu tax ñu wàññi ko dañuy toll foo xam ne si du suñu activité duutuñu may ñuy dem làmb fuñ toll mais ñun ay demkati làmb la billet bu ne dagg nañ ko ci làmb amul làmb boo xam bi mujj dem ci làmb mooy Modou Lo ak euh, Lac de boobu laa mujj dem ci làmb ba fi may waxatee Modou Lo mooy sama mbër bëre war na ci yoon bi ay yoon yoon mais déw ma parce que làmb dafa lu muy laaj am niveau moom boo wax tool da nga koy bàyyi say doom ñi ngi màgg toll na yow da nga leen di bàyyi yooyu mais violence bi moom buñ ko dindee ci làmb ji maa ngi dégg aussi ñuy wax ne dañ def lamb huis kuloo lamb lamb huis clos mën naa nekk. si mën naa nekk euh, ci anam bi muy nekkee mooy na mbër yi wàññi kase yi. promoteurs yi mën a jël plateforme yi ñu wane euh, affaire parce que internet mi ngi dox léegi lépp lu ñuy gagné ci internet lay doon seen télé bi sax bañ ko ci internet lay génn. nu ngeen ko dundee. waaye niñ ko dundee moom xam nga ne dund ñu mbégte parce que koo xam ne da nga doon dem samedi lamb dimanche nga dem lamb léegi dematoo fenn da ngay wàcc rek sa kër te buñ sayeen am nañ ay mbër mbër yi am yëpp am nañ ay combat amuñu date mënuñoo bëre ah loolu moom xam nga ne neexul buñ sañoon moom vraiment dañuy dem di seetaani di làmb di seetaan suñuy mbër mais instant bi loolu lépp amuñu ko mais nag dañuy comprendre li tënk àdduna bi yëpp moo ñu tënk te buñ sañoon moom feer bi daal dañuy ñaan yàlla suñu borom mi ko fi indi mu jëlee ko ci jàmm ak salaam ba kenn ku nekk li nga doon dox nga continuer ñu nekk ci di ko dox. lu ngeen di dundee ak mbër yi nga xamante ne bii euh, gëj nañoo bëree parce que ku nekk xam na ne mbër daanaka euh, ñi ci ëpp làmb rek la ñuy yaakaar euh, di nekk ak mbër muy bëre bu bëreetul lool noo leen koy dundee. du ñàkk ñu leen di sonal ci ñëw di leen daanal ci ay xaalis mi di wax ak yow lu mat fukki mbër ak nangam leen di fayal saal pour ñuy entraîner. Ah waaw ñu ci bari am na mbër yoo xam ne bu ñuy dem fu ñuy dem dañ lay woo damaa bëgg a damaa bëgg a dugg fii génn fii mhm. ñi la wax ay ordonnance ñi di la wax lu nekk mhm. moom da ngay sonn moom. vraiment da ngay sonn mais da ngay xam ne nag même du mbër yi kese nitu làmb yi. communicateurs yi nga xam da nga leen a xam dañ doon dund ci làmb par samedi ak dimanche ñu ciy for seen wërsëg. ñu ci bari dañuy ñëw ci yow di la wax seen i soxla nga di ko faj. mais nag sant yàlla àdduna bu la yàlla dimbalee may la tur wala mu jàppale la may la benn wërsëg bu ndaw ba nga ciy mën a dimbale rek santal yàlla suñu borom. parce que àdduna ñaar moo am laaj ak joxe. te joxe li muy li muy métti métti métti laaj ko gën a métti. te ku di bokk ci ñuy joxe. mais àdduna yàlla moo bindee noonu ñii dañuy mën a joxe ñii duñ mën a joxe kon donc kenn ku ne daal jamono jiñ toll loo tanee sa morom rek booy ba nga dimbali ko ci muy sa wërsëg muy xam muy sa doole lu mu mën di doon jamono jiñ toll nii métti na métti goo xam waaye tanee sa morom rek booy ba nga dimbali ko ci mais nag dañuy ñaan yàlla mu jeex ak jàmm ak salaam. ñu ngi wax làmb huis clos ñu gis ne Père Gaston moom nee na d' accord na tëgg diggante Eumeu Sène ak Lac de Guiers sax huis noo loolu moom man d' accord mu ci. àndoo ci man moom vraiment d' accord mu ci te mbër bu ma déggal boo xam ni samay di nga ma laaj xalaat parce que man am na ay mbër yoo xam ne balaa ñoo jël combat dañ may woo laaj ma ne sàngam lañ may jox est ce que d' accord nga ci wala d' accord su ma d' jël su ma d' jël mbër yi nga xam ne d' déggal nañ ma te nga xam ne am naa ci ñoom baat ku ma ci wax doo jël huit kilo lambu du vi waa lambu laajul loolu. lamb dafa laaj amateur laaj ay supporter laaj ay tëggkat laaj fecckat laaj lépp ci biir lamb mais ñaari mbër ci biir géew kenn supporté wul kenn dara amul loolu taxul ñuy wax làmb nekkatul làmb loolu promoteur yi koy wax yëpp dañuy nax seen bopp rek yaa may dégg seen xaalis lañ dugal ba pare te xamuñu lu ñuy def rek di am lu ñuy wax mais ñoom sax amuñu leen neex ci loolu kontaan nuñ ci te loolu gënalu leen loolu moom d'accord ma ci grand mm-hmm. waaw vraiment d'accord ma ci loolu. Mm-hmm. kon per PPV bu ñuy wax yow bu ndawoon tey làmb am na ñu ne la ñu ñëwal jënd doo jënd. waaye du du ma ko xool sax. du ma ko lijjanti sax man ay véhicule moom loolu loolu taxut taxut ñuy wax làmb mhm. lamb moom grand yow mii sax xam nga ne làmb bu ñu koy wax mhm. li biir amateur moo tax làmb dafa am sarmo dafa am bàkku mhm. am tuus am fecc am supporters yi yuuxu mbër mi am lu supporters yi def ci moom yaa ngi ma dégg mbër daan yëg kaw tribune ay xaritam ay mbokkam may ko xaalis mu wàcc loolu mooy làmb mais làmb ay véhicule loolu football ci football ci tubaab nañ toppandoo tubaab yi ñun li ñuy def du affaire tubaab affaire nit ku ñuul la suñu suñu cosaan suñu cosaan la suñu cosaan àndut ak loolu. dafa laaj seetaan laaj fecc laaj way laaj lépp supporters yi lépp ci biir mais ay wi loolu moom loolu moom grand loolu moom man d' accord wu yow doxul quoi. non doxul bëgg ñu ubbi stade yi. nit ñi daal d' naa ñuy wax benn affaire. ñu ubbi làmb ñu ñi seetaani kuy ñëw takk maska jar na sax stade bi parce que man stade bii ñuy bëree nii ba ma ci dalee seetaan làmb ba léegi amul benn combat bu masa fees. stade bi mos a fees léegi jar na ñu def distanciation bi ñuy wax. buñ teg kii toogee benn sées ñu bàyyi benn sées ba pare nga takk masque li nga xam ne nii moom la ñu bëgg mesures yi ñu jël ñu sàmmonteeg moom mais ay no loolu moom grand loolu moom d'accord